asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 20 novembre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la xëy doo rek mu mel ni ki nag tey yëglikaay bi ki mu xëy fësal moo di Ama Baldé que xëy di wax ci moom nag moo di Doudou Diagne Diecko Doudou Diagne nag la mu xëy di wax daal nee na fa Ama fi mu nekk nii moom mënee su koo jégal dara ndax li tax mooy moom moo war a jël nag combat bii nga xam ne moom la ñuy wax ci digganteem ak Modou Lo moom daal jàpp bu nekkoon ne moo nekk tey ci am place Ama Baldé moom Doudou Diagne du am lu muy calcul wala mu koy xalaat coppet lay def avance bi dal di bëre ndax nag nee na Ama li tax loolu moom moom fi mu nekk nii moom daa jàpp ne Ama de amul lenn loo xam ne nii daal mu ngi koy per ci combat bi nga xam ne moom la war a bëre ak ki nga xam ne moo di Modou Lo moom du jaañ loolu la wax ndax nag nee na comme moom moo ko doon dëkk yu mel ni ki noonu ak yeneen mbir yoo xam ne daal ñëw na ca moom du tax na mu ne kon Ama Baldé na am courage nag jël combat bi ko loolu mooy wax ki nga xam ne ni moom moo di du jaañ na lamb ji tamit fi mu nekk nii li ko tee bokk na ci mbër yi nga xam ne ni day jàpp na ne ñooy mbër yu mag yi bokk nañ ci li nga xam ne nii wala bokk mbër yi ci seen wàllu bopp ñoo def sax li tax kon sponsor yi daan nekk ci lamb ji ñu ci bëree bari retiré wu te moom jàpp na ne sponsor yooyu feek ci lamb ji ne lamb ji fa mu nekkoon moom pour mu demaat fa dina jafe mu mel ni daal président des amateurs tey du jànje ko moo xëy ngar daajoo yëglikaay bi wax fa yaatoo yaatu jëmale ko ci lamb ji nga xam ne mooy sunu sportum réew leneen loo xam ne ba tey gis nañ ko ci yëglikaay bi di sunu lamb saa Thiès lan fa fekk yëglikaay bi na li leer ba leer ginnaaw ki nga xam ne nii day moo di Modou Lo ak Ama Baldé Boy Niang ak Balla Gaye ki nag saa Thiès itam mu ngay laaj wàllam ci na moom Eumeu Sène la bëgg mu mel ni kon mag ñi daal ne leen lu ngeen fi laal dinañ ko laal li leen ñu bëre loolu mooy wax ji loolu sunu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci muy écrit face ba nga xam ne demoon na fa ci altine ji ñu génn xooli seeni entraînement jàpp na ne nag li leer ba leer moo xam ki nga xam ne moo di gri la lagros ba ci giri de ñett ñi moom absent la ñu fa def maanaam gisee su leen fa ak ay bët jaar daal defuñu ko fa leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci sunu làmb muy ay mesures yoo xam ne nii fi mu nekk nii day nar nañ koo jël ci mbirum kase yi ak avance yi fa nga xam ne mooy ca CNC ba yëglikaay bi ñëw na ci moom moom mi nga xam ne moom moo di sunu làmb leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci muy ki nga xam ne nii day moom moo di monsieur le ministre mu tam Moussa Matar Ba mi nga xam ne moom fasas na koo yéene nag tudde li nga xam ne moom moo di ab drapeau ña ko ko nar a tudde nag moo di promoteurs yi ci njiital Pape Abdou Fall mu mel ni ki nag loolu le 12 janvier lay am ca stade Iba Mar Diop ñu tëj stade ba muy làmbi mbappat buñ ca jógee nag ci la ñuy mujj bëre Iba Mar Diop ndax stade ba day ne nañ dañ ko war defar yëglikaay bi ñëw na ci waaye bu buñ fa jógee itam dañuy dem fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV mu mel ni ki nag démb ca 2STV moom Fallou Ndiaye amaloon na fa ab face à face boo xam ne bu tàng jër la war a dox ci diggante Mama Lamine ak ki nga xam ne moo di jokkeel ñoom ñaar nag samedi la ñu war a bëre wala boog le premier la ñu war a bëre le premier décembre daal la jokkeel war moo di Maama lamin mu mel ni ba tey boo leen fekkee ci Leewtoo TV ñu nga fay sànnente ay taraak ku nekk di wan sa morom ne ko maa la gën ëpp fit dàq laa bëri te buñ ca yeggee di nga xam ne lépp lépp lépp dëgg la mu mel ni ki ñaar ñooñu fi mu nekk ni moom seenub dëkkante saf sàpp def na ko ba tey dañuy dem fa nga xam ne moom moo di ca sunu làmb fa la ñuy des ndax fi nga xam ne ni day moo di mbuur tiis ba fa am moom daa mel ni fi mu nekk ni ba tey des na ca xol ya ndax am na ñoo xam ne ñu nga xëy di def ay seere ba tey ku mel ni Yaasin ja di sër ci Pape ja moom la mu xam ne day ne ñoom ki ñu ñàkk bàyyi lañ ko jàppe ci ñoom Big Pato moom tamit waaye di police moom dina jaay ci moom ñàkk moom kenn la woon ci ñoom maanaam kenn la woon ci famille bi santan ñi nga tamit di am mbër tamit nekkoon ku ko jege moom tamit day nee na ñi nga xam ne nii day ñoom ñoo di waa làmb wala sax waa mbuur ñoom ñoo ñàkk doom joo xam ne ah doom ju amoon njariñ la Elhadji si Sylla tamit di meeru mbuur moom tamit ñëw na ci jàpp na ne Pape Dia moom sportif la woon boo xam ne bu complet complet la maanaam ci baaxeem ak léppam ba tey journaliste tamit de ñu ca ndax ki nga xam ne moo di Adama Diop moom di ab journaliste nekk ca rajo si FM ba ca mbuur na waa mbuur ci wàllu boppam ñoom ñoo ñàkk koo xam ne day pour ñu amati ko dana jafe waaye li leer ba leer daal jàppal leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko fii nga xam ne nii day moom moo di ci yëglikaay bii nga xam ne moom moo di l'observateur muy diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne nii moo di Boy Niang la mu jàpp daal mooy ne combat bi moom ne nañ bu taxawee daal combat la boo xam ne dina joxaat làmb geneenuk nokkat wala beneen suuful boo xam ne daal dina ko am l'observateur moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni kii noonu waaye dañuy dellu fa nga xam ne mooy ca sunu làmb làmb simple ja mu mel ni ki selemele tamit fa nii day ah bu doon day ñàkk ay combat itam mu ngi xaw di gisaat nag li nga xam ne moo di yoon wi ndax nag yéeglikaay bi ne na fi mu laa bii ne nii day moom lañ fa tegoon di ay nag la la commencé woon ba tegoon moo ca teg loxoom dal di koy jël keneen koo xam ne tamit am na lu mu jël ca jurub loolu kooku kokkal la yëglikaay bi mu nañu Cheikh Ndiaye la li commencé woon la 15 tamit jàpp la 17 novembre lañ fa tegoon moom Cheikh Ndiaye moom moo ko jël mu mel ne ki kon tamit daal daa mel ni mbir yi moom ñu ngi ci àll bi rek di ko ñàkkante di ko lijjanti li nga xam ne nii daal moo di tournoi yi am ñuy bëree loolu nag yaakaar na moo jig mbër ndax boo yore sa licence gis ñu teg ay nag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 te di ko saaku ci ñoom. Amin Babacar ñu commencé nag ak sunu lam sunu lam na tey dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Doudou Diagne Diecko président des amateurs de lutte moom daal lu mu gis nee na Ama Baldé dafa war a jël combat bi def bañ def euh, calcul parce que moom moo bëggoon bëri ak ki nga xam ne mooy Modou waaw c'est le président des amateurs monsieur Doudiane Diecko ñu di ko ziar tey nag foofu la xëy génn que ne Ama dafa war a jël combat bi parce que li tax ne na moom moo doon laaj komba bi benn bi ci des tamit jàpp na ne moom amul lu muy per ci combat bi kon jàpp na ne kon dafa war a jël combat bi bëre waa loolu nag ki ko wax ku yàgg la ci làmb ki nga xam ne la defe naa ne euh, seetaan na sax mbër yi nga xam ne nii mën naa ne mag dañu Ama Baldé ci làmb wala sax ñu mat ko wayjur kon defe naa su waxee voix am ci làmb voix autorisée la maanaam lu ñu war a lu ñuy déglu la kantaan nag leneen li ci des mooy que Ama Baldé mooy mbër mi moom mooy bëree xëy na moom mooy xool li nga xam ne jàpp na ne arrangé na ko mook staffam ñu def ko waaye du jaañ moom jàpp na ne tey Ama Baldé fi mu toll nii ci làmb ak combat bi mu am nii ñu proposé ko ko muy occasion moom dafa jàpp ne da ko war a jël bëree kon nag bal bi daal mu ngi ci kaawu Ama Baldé xamuñu da koy dugal nag wala day teenoon bal bi bàyyi wala moo da koy tël wala day tël mu dem waaw <laughs> Babacar journal euh, sunu lam aussi mi ngi xamal ne ren daal ren euh, lu ñu gis daal mooy grand contre petit ginnaaw euh, ni ngi laam-laamee combat Boy ña ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye Modou Lo ak Ama Baldé nee ñu tamit ki nga xam ni mooy Sa Thiès mi ngi laaj Eumeu Sène waaw loolu moom mooy li nga xam ne nii am na ndax boo xoolee loolu kere ci micro bii nga téye di micro Leewtoo TV fi la waxee wax boobu moom Sa Thiès tey waa sunu làmb ñëwaat ci mu mel ni kon la ma waxoon rek mag ñi fi mu nekk nii daal xale yi dañ leen ne basang bu ngeen fi lal bëgg caa noppali ko danañ ko lal li sànni ci àll lii def lii mën a ne kay mooy ngeen ñëw nu bëree nag waaw olof nag dina koy faral di wax ku bëgg a dee wequ parce que li ci nekk mooy kani làmb ji sax amateuru làmb yi boo leen laajee ñoom dañu soxla actuellement grand contre petit bi yaa la ñu bëgg parce que ñoom dañu lay wax ne que tàyyi ci maanaam. revanche yi revanche revanche. combat VIP ak combat ñoom dañ jàpp ne xale yi nga xam ne nii ñoom la ñu gis muy Ama Baldé muy Boy Niang muy Sa muy guy gi muy Reug Reug ah ak yeneen ak yeneen ay Modou Anta. ama neex mbër yooyu yëpp jàpp nañ ne ba ci garga mboose kon dañu jàpp ne ñooñu gars yi dañ leen a war jël bëre ak ñoom parce que ci làmb ji lañ bokk. lekk si ndabu VIP bi. ah bien sûr loolu war a am di loolu war a am papa soo jël na Siteu waaw Siteu papa ku jiitu ci làmb fuuf bi Papa Sow di toj boobu si tëj egg seegul mais bi mu xoolee xam ne yegg si na ñu dox ko combat bi tegu ca baat da koo jël parce que loolu ma sport pour man ñoom ñu tamit noonu la ñu war Modou tamit nangu na ko moom ak Ama moom tey amul luñ koy wax parce que nangu na ne dinañ bëre ba mu jubóog promoteur kon ñeneen des tamit nañu caravaché. Balla Gaye aussi Balla Gaye waa moom it bañul Boy Niang yaa ngi dégg et puis tamit mooy lu normal Bombardier tamit bañul Reug Reug kon yaakaar naa daal kon actuellement est-ce que kon promoteurs na situation bi décanté wu ndax ñëpp mën a bëri. Amin Babacar Babacar euh, ginnaaw réunion bu nu amaloon ak CNG promoteur yi bu nu génnee daal CNG jël na benn mesure boo xam ni xëy na euh, dina neex trop si ki nga xam ne mooy promoteur yi nee ñu daal bu njëkk ba sooy sooy jàpp date da joxe avance léegi loolu CNG dina na ko léegi mu nga ñëw jàpp sa date sans pour autant nga joxe avance sur cachet. waaw loolu day moom maanaam dimbal la ci promoteur yi ndax des fois xëy na euh, waaw affaire yi xaw laa jàpp yooyu parce que du chaque jour rek li olof wax du saa yu bàyyi rëbbee rek jàpp mbët des fois nga dem rëbbi doo am dara yaa ngi dégg kon nag bu fekkente da nga war a ñëw di jàpp dat des fois mm, yoroo avance ñu ne la léegi mën nañ laa may loolu mën nga ñëw jàpp sa dat sans nga indaale avance ah loolu tamit defe naa ne de plus la quoi ci gën leen a dooleel gën leen a jàppale quoi mbokk na suñ jógee fi nga xam ne mooy Sunlam lañu dem fi nga xam ne mooy euh, observateur observateur daal lu mu gis nee na euh, combat bi nga xam ne Balla ay Boy Niang Boy Niang muy combat jànk nee ñu loolu dina baax trop si làmb ji dina tax làmb ji ubbeeku du amati grand grand contre petit la dootu amati revanche du am tamit combat yi nga xam ne diggante VIP VIP kese la maanaam. Euh, Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye. combat bi lu lu lu ki su amee ngañ daañ neen daa neen lu baax la si làmb ji parce que dina tax affaire bi ubbeeku ndax combat jànk la ñëpp mun si euh, am seen chance maanaam daal lu baax la daal si làmb ji. mooy li ñu doon wax sànq rek grand contre petit boobu moom à chaque instant ñu ngi ciy wax nit ñaa ngi ciy wax loolu ñu ci wax tamit ci ngañ daañ wax ko ah lu waa lu lu yaakaar naa ne lu nekk la parce que ngañ daañ li ma waxoon ci Doudou Diagne lay wax si moom rek moom itam ñëpp dañ koy bàyyi xel lu mu xam la te lu mu yàgg la te yàgg na ciy liggéey kon defe naa grand contre petit bi moom boo bëggee dégg dëgg ñëpp moom la ñuy réclamer des fois sax ñun ñu wax ci ci lu journal bind wala nangam yaa ngi dégg nga gis ñu yaakaar ne ñun ñun ñooy forcer loolu non non non wuñ ko journaux yi ñoo ciy bind te mbër yi tamit ci li ñuy nangoo ci ñoom bañante bi bareetul ci seen biir yaa ngi dégg xëy na nag li ci nekk mooy que ni lamb olof ne na dug maas dabante la te ci kaw lay fekkante bu doon ku jël kon yaakaar naa mbër yi bëri dootuñ bëri ko loolu am na solo ñu dem nag fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ñi nga xamal ni ki nga xam ne mooy Khalifa Sow muy DTN bu bees bi moom daa jël na fonction ndax réunion lundi hebdomadaire bu CNG bi passé mi ngi fa woon teew Babacar. waaw fonction ban la fa jël moom Khalifa Sow. DTN moom mooy DTN bi. technique nationale. remplacé Abdou Badji bi démissionné woon léegi nag léegi carte gi leer na dem lundi rek demoon na si réunion CNG ba Xalifa fa ko fekk kera ñu koy nuyu di ko ziar comme li ma la waxoon rek moom yaakaar naa bi mu nekkee ci làmb comme arbitre nekk na arbitre yi nga xam ne exemple si arbitre yi defe naa nag lu yàgg ci njaw di njaw tey bu ñu xëyee def ko DTN pour mu war a nekk directeur technique national ci place Abdou Badji defe naa loolu mënees na caa xaar résultat bi nga xam ne bu positif la war a doon parce que mu xam la yaakaar naa loolu lañ ko jox Babacar si kàddu yoon leen tàggoo leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay Merso di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu ki nga xam ni mooy astande déjà Brahma Chéri Khadija jàll di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya bébé Fallou bébé Moussa di aussi ki nga xam ni mooy Mbaye Seye depuis Ouest Foire ah, di nuyu ki nga xam ni mooy waa Parcelles Assainies unité 26 yëpp. waaw ni nuyu waa parcelle yëpp 1 ba 26 comme noonu nga ko waxee sa dëkk waaye itam di nuyu waa fi ma dëkk nii si Dakar muy waa Ritol bi ak Angalfeder bi waa Dakar Plateau yëpp di nuyu waa ASC jamono du mën a ñàkk parce que fa laa dëkk mais nag am ki nga xam ne nii sama yaay la di yaay Youssou Ndoye yaa ngi dégg tout le temps may tudd Youssou Ndoye muy sama yaay Penda Diawara yaa ngi dégg magam bu ñuy wax maam bu Kunta jawara moom moo décédé depuis États-Unis ci Atlanta ñu war ko indi Sénégal tey ci àllarba ji pour denc ko suba fa nga xam ne mooy Njaasaan ma koy jaale suma yaay jooju Penda Jawara di ko jaal tamit sama rakk sama xarit Youssou Ndoye ak ki nga xam ne mooy Xadi Ndoye ñu naan ko mami di leen jaale seen nijaay di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana parce que rek li ñuy wax àddina moom loolu moo fi nekk di nuyu maire bi bu baax a baax parce que ndey Kumba dafa am loo xam ne yombul gis doomu jaambur jël ko def ko ni sa doom te bu ñu doon xool tey ci côté koom-koom ak yu mel noonu lépp yaa ko ëppale mais nga adopté ko dugal ko ci sa biir lool nit ku baax a ko mën kon yaay Penda Diawara maa ngi lay jaale sa mag jooju bu baax a baax a baax mais di nuyu internautes yëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm faat ja tamit di rakku Bombardier ji du ma fàtte di ko jaale parce que lu tax mooy dafa bokk ci fans club Leewtoo TV bokk ci ñi ko taxawal moo ku ñu wax Cissé ca Brésil te dompat olof ne sot la bokk yaa ngi dégg kon Fatou Dia yow it massa ci loolu mi di nuyu ñëpp di wax ne tamit bii yaakaar naa face à face bi amoon ci 2STV gis ngeen ko wala di ngeen ko gis ci Leewtoo TV ak Fallou Ndiaye diggante Jokkeel ak Mama Lamine muy làmb joo xam ne moom itam war na am le premier décembre ñoom Khady Rose Ndiaye du ma leen fàtte gars yi maa ngi nuyu ñëpp Elas Touré maa ngi koy fal maa koy nuyu di ñaanal ñëpp jàmm nday Kumba Fall di la balu àq di balu internet